Mm, voilà merci maa ngi nuyu leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar di nuyu euh, euh, le khalife général des Tijanes euh, Serigne Cheikh Ahmadou Tidiane Sy Al Maktoum di nuyu sunu papa ju baax ci monsieur Abdoul Aziz Al Amin si quoi di leen nuyu waa Thiès Info. maa ngi tudd Babacar Diallo. Babacar Diallo ñu xam la ci wàllu politique ca Thiès tey ñu gis la fii ci Tivaouane lan moo sa waral sa teewaay fii. waaw sama teewaay ci Tivaouane mooy que nii dama bokk fii ci Tivaouane waaw yaakaar naa ni fii ci xadara Seydi Hadj si yaakaar naa ni yaakaar ne ku may xool xam na ni fii laa bokk waaw donc ma sañ ci Thiès waaye am naa fii kër fii ci Tivaouane fii ma bokk Koskas en même temps aussi waaw donc di liggéey ci wàllu Koskas. oui mu mel ni aussi ci gàmmu gi am na ay ay ay ay eh, yoo ciy def yooyu lañ bëggoon na nga faramfàcceel fàcceel ñu ko. waaw am na li ma ciy def li ma ciy def bari na trop parce que ku dégg gàmmu yaakaar naa ni sa xel du nekk ci kenn lu dul Seydi Hadji Malick waaye gàmmu bisu yonent bi la waaye foo déggee gàmmu rek nga dégg ko rek sa xel du nekk lu dul ci Tivaouane ndax gàmmu Seydi Hadji Malick da ko sant fii ci Tivaouane ne nañu gàmmu ndax bisu yonent bi la. te yaakaar naa ni ñu ngi ci burdu bi ñu ngi ci lépp mu nekk loo xam ne lu ci nit def aussi boppam la ko def ma fas yéene ci jël ci teraanga yoo xam ne dañ koy def defaluma ko sama bopp defaluma ko sax nit ñi waaye sama bopp laa ko defal waaye ngir jëm yonent yàlla Muhammad moo tax te gàmmu dafa nekk loo xam ne loo ciy def lu nekk yaakaar naa ni du nekk loo xam ne li ngay réccu lay doon ñu def ci nag teraanga yoo xam ni dañ ko jagleel doomu aadama yi jagleel ko nit ndax ku jël ay doomu aadama ñu ñoom ñëpp ñëw ngir yonentu yàlla Muhammad yaakaar naa ni loo ci def lu nekk rek jar na ko ñu jël ay teraanga nag daf ko fii tas ko ci biir Tiwaawan fii waaw muy yan. jël nañu ay ceeb tas ko fi biir Tivaouane jël nañu ndox tas ko fi Tivaouane jël nañu ay nag tak sànni ko teg ko fii ci Tivaouane jox ko ci doomu aadama yi ci askan bi jël nañ fi teraangal yu nekk jël nañ ko fi jox ko jaam yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk fii ci Tivaouane fii mu nekk loo xam ni mbégte la suñu mbégte la te ngistal taxul ñu di ko def. yow gàmm lan lay def ci yow. gàmm dafa nekk loo xam ni. yaakaar naa ni li ko njëkk a gën a dugal ci man sax muy Cheikh Seydi Mouhamadou Mansour si ndax yaakaar naa ni ku xam Cheikh Seydi Mouhamadou Mansour Sy ñu koy woowee borom daara ji te tey ji ku ma dégg rek war na xam ni lépp lu may def rek moom moo ma ci moo ci dugal cofeel googu mu defoon ci man ci gàmm parce que dafa waxoon ne gàmm mooy nekk loo xam ne bisu yonentu yàlla Muhammad la te nekk na bis boo xam ni euh, bis la boo xam ne bis bu nit ñi tàmmul la bis bu nit ñi soxlaal la bis bu nit ñi yitteel la donc mu nekk loo xam ni mu dugal ko sama biir gëmloo ma ko loolu moo tax tey jii lu ma am lu nekk rek gàmmu moo ma ko gënal muy bisu yonent bi moom moo ma ko gënal. amoon message boo xam ne da koy jëmale ci ci ñi nga xam dañuy ñëw di gàmmu si ban message lay waaw mooy que ni ñu ànd ak dal ànd ak ak pas-pas ànd ak seen sago te it ñi nga xam ni yàlla may na leen doole ñu ñëw def ko ci bisu yonent bi te xam ni def yëpp baax na waaye def fii ci gàmm moom mooy def bi gën a am yitte mooy jël teraanga jox ko nit ñi jox leen ñu lekk jox leen ñu naan ñi nga xam ne aussi dañoo nekk ci kër yi ñu ubbi seen kër teral ko gan yi te xam ne du nekk lu ñuy rëccu ñi nga xam ne aussi am na doole seen doole doole loo xam ne yàlla may na leen ko ñu jël ko tas ko ci jaam yi jox leen ko. te yàlla rek tax ngir jëmi yonent yàlla Muhammad te it di xamal ni aussi di ñaanal suñu xalif général des Tijanes muy Cheikh Ahmadal Tijane si di ko ñaanal yàlla may ko fan yu gudd bàyyi ko fi al amin aussi yàlla may ko fan yu gudd bàyyi ko fi di ñaan mbokk jullit yëpp ñu ñëw ci jàmm delluwaat ci jàmm ànd ak jàmm tey jàmm fekk leen te yàlla defal ñu sutura yàlla ba mu nekk suñu mujjantal gàmm